cher jentenet yu enquête 221 dal leen jàmm dalate leen jàmm ci li gën a fës ci yéglekaay yi ñu commencé kook direct news mi del soit ci déclaration de politique générale bi nga xamante ni ñoo ngi koy xaar premier ministre def ko tey ji ci assemblée nationale yéenekaay bi na Amadou Ba fas yéene jàkkaarloog député yi daal di li nga xam ne mooy programme am waaye lu wér te wóor mooy du yomb ndax mi ngi jàkkaarloog ci biir assemblée bi ay député yu nekk ci opposition bi nekk ci opposition bi presque ñoo moo tax fi mu toll ni Amadou Ba bi nga xamante ni ñetti weer dongu am lim fi jot a defagum ci liggéey ba ci juróom benn accord yi nga xamante ni signé na ko ak France solution yi ñuy ci cherté de la vie wàññi njëgu dund gi exiger commerçant yi ñu daal di respecté charte yi mën na la fukki ponk ak ñett moom la gouvernement bi tëraloon ndax mesure yi ni mel indi na ay solution ci njàmbatuk askan bi loolu lépp dana leer ci kanamu député yi yéenekaay bi na Amadou Ba daal am na priorité moo gouvernement bokk na ci dund gi daal di ñ yëkkati suñu économie réew mi taxawu suñu pétrole ak suñu gaz bi nga xamante ni mooy suñu sutura yëkkati dayok Sénégal ci kanamu àdduna bi yépp noppi nag daal di yokku kaaraange réew lii bokk na ci priorité yi nga xamante ni gouvernement bu Sénégal gii am na ko moom Amadou Ba fas yéene jàkkaarloog député yi ñu càmbar ko benn par benn ci ponk yooyu bés bi le journal en tout cas face à premier ministre bu mu yaakaar benn yoon na dana yomb en tout bu mu mënte indi tamit war na koo dëppale ak contexte bi nga xam ne moom la nekk moom Amadou Ba am défi bu toll ne convaincre ay adversaire am gagné tamit confiance président Macky Moustapha Niass situation yu mel nii nam daan téye assemblée nationale yéenekaay bi di fàttaliku discours bu historique bu Mamadou Dia en 1998 na la ci suñu biir assemblée nationale bii contexte yii yëpp nag moom Amadou Ba war na koo bàyyi xel wal fukkati jéene ñu war a bàyyi xel seen bopp dëgg kay moo di socialiste yi nekk ci réew mi Yaya Diallo di socialiste français di xam ne ci biir yéenekaay bi ne PS bu Sénégal laa la wax dafa dee wet Macky Sall rey na ko ba suul nañu ko te kàngam yi nga xamante ne ñoo nekk ca tubal tigg ñoom ñëpp nag bàyyi nañu Ousmane bi lii ci parti politique bu gën a mag fii ci Sall moom Yaya Diallo di xam le ci biir yéenekaay bi ne gis nga Serigne Mbaye Thiam mësul gagné élection te mësul jege sax nekk ci bopp parti socialiste en tout cas bi desuwaat ci projet AMS moom amul couleur du couleuru parti du couleuru association lii ab kuréel la goo xamante ni moo ëmb mboolee mi maire yu nekk ci biir réew mi kon nag keneen buy créer association bàyyi leen ko yëlekaay bi ne Macky kay waaye Yewwi Askan la doon tegaat seen place sàkku ci ministre des collectivités territoriales nag Mamadou Talla mu jël responsabilité ba mu jeex ci association bii ñoom Ousmane Sonko taxawal ndax ñaari association des maires moo mënta am ci biir réew mi waaye Yewwi Askan Wi di tontu président Macky Sall mii te koy xamal mooy dagg sa ndaxte ñun suñu association la ñu lijjanti l'observateur moom dem ba diwaanu na fa ci week-end bii ñu génn yéenekaay bi ne waa rek di tiire ñaar ci ne liggéey ca côté marché ba ñàkk seen na li mu blessé nag foo ko natt weesu na ko en tout cas li wér teewul moo di Ali Kouyaté na ne fetal moom la doon tiire mu ngi ko jëndee 150 000 francs ca diwaanu Mbàkke lépp ngir mën a braquer bureau bii ba noppi nag moom Ali Kouyaté mu nga xam ne def na ci ay opération yu bari nettali sax moom ne mu ngi jóge ko ci diwaanu Thiès quartier bu ñuy wax ngent jël motoom daw ba mën a def opération bi ni mel mu ñëwee ci bureau de boobu gardien bi dong la fa fekkoon la libération yéenekaay ne leen rek nettali leen kaa bi nu demee moom waa jii di wuyee ci la mu ngi am fanweeri at ak ñaar samedi bii ñu génn la jóge ko Thiès quartier bi ñuy wax ngent war motoom jëm Mbour fas yéene def opération bi ci biir vestam bii ci la dugaloon fetal boo xamante ne nii ci la mujjee rayee ñaari jeunes yoo xamante ne ñu ngi dëkk ca Mbour yéenekaay bi dañoo xamante gis nga waa bi mu tiiree ba noppi dafa déchargé fetal gi doog a làqatu nag ci ronu escalier service de pêche bi foofu mu làqatu sax foofu lañ ko fekk daat ko jàpp yóbbu ko ci loxoy yi di sànnantey xeer lépp na ngañ siise ñàkk na ca bakkanam te ndaw la woon mu ngi am fanweeri at ci dënn lañ ko dóor balu fetal mu daal di daanu njaga njaay moom it ñàkk na ci bakkanam fanweeri at ak juróom dong la am daf doon dimbale si ngañ siise mii ñu dóoroon balu fetal bi ci la ko aalikuat daal di séen ko bal moom it ñàkk bakkanam yéenekaay bi dañu xamal ne limuk blessé yi nag foo ko natt rek weesu na ko maanaam mbir yi comme film waa ji ñu ooyee Alioune Ba am ñeen fukki at moom ci blessé yi la bokk Moussa Ndaw ci blessé yi la bokk mbay Diouf ci blessé yi la bokk ñi ci ëppal ñi ci loxo ñi ki seen nax la ñuy am blessure en tout cas li ñuy yéenekaay bi xamal moo di Aly Kouyaté mi nee na problème bu famille la amoon ñaari soxna la am ak benn doom waaye benn ki soxna mi moo nekk en état de am la woon xaalis lii moo taxoon mu dem ci daanu bi ni mel la tribune yéenekaay ne ci ñaari fan rek sénégalais ak ñett ñàkk nañ seen bakkan ci diggante xombal mbuur ak Kidira ñett ñi ñoom Ali Kouyaté moo leen mujjee rey moom waa ji nga xamante naka noonu tamit yéen bi dellusiwaat ci accident bu métti bi nga xamante ni am na ci week bii ñu génn juróom ñett nit ñàkk ci seen bakkan ñett ñi bokk benn kër naka noonu tamit ca cité douane benn njaga mu fi ñëw écrasé fa benn conducteur de Jakarta lii di def li mu fukki nit ñett yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci week bii yi l'exclusif yéen i kaay boobu ubbi xët bi nga xamante ni ba léegi si coow li seddagul en tout cas yéen i kaay bi taxaw na seetlu ci seen confrontation ñoom ñaar te na ci ñoo xamante ni commencé nañoo soupçonné ne Adji Sarr mii nekkul ci dëgg ndax nijaayam bu mu bokkal benn deret laa la wax nee na aji mu ànd ak gouvernement bi du ci am dëgg mu ànd ak fameem du am ndam mu ànd ak ay xaritam du ci am ndam ndax lii mu nekk du dëgg te ñu ñi jàppale wuñu ko ci Nabou Daas mi ñëpp xam di styliste moom tam di xam ne ci biir yéen bi ne yëf yi daal manipulation la te Adji Sarr amul dëgg benn Moxtaar analyste ne casting ci boppam moo baaxul nekkoon série téléfilm la ñu ne saison bi du continuer Jimbori animateur di ko dëggal ci biir yéenekaay bi ne ne Adji Sarr naka ngay mën a nekkee ci dëgg ba noppi di làqatu suba ngoon gu dëgg ba cëkk maître El Hadji Diouf ne en tout cas Adji Sarr moom fen na ndax moo fi waxoon ne dafa ëmb waaye nag bu ñu waxantee dëgg dong Adji Sarr musul ëmb fii ci biir réew mi <laughs> yéen nag jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm allah